ana ñu bëgg voiture maanaam oto yaakaar naa kenn bañu ko ak Amadou Camara ca Canada oto wala marque oto bi ma bëgg gisuma ko daal dina fiy jeex marque bu dul marque jinne boo demee fekk ko fa moo xam nga bëgg Ford Range Rover Toyota rav Chevrolet ak yeneen ak yeneen. oto yu taaru lool te mucc ayib rax si dolli nag si njëg bu xéewalee ba jaaxal ma waaw yow mi ci bëgg da ngay woo Amadou Camara si numéro boobu ngay gis ci bar bi di plus 1 514 464 525 3 bu la neexee sax woo ko ci WhatsApp commandé oto boo mën mënti bëgg si njëg bu xéewalee loola Amadou Camara am na ndawam fii si Sénégal yow daal woo ko rek wax ko oto ba nga bëgg lépp lu leeral dina la ko si wax yii njëg daal ma gis monsieur Amadou Camara ca Canada ku amul oto bu taaru lool yow la neex te nag foo gaare ñu xoolaat sa oto daal di lay naw yi la oto yu taaru daal fii rek nga ko mën a amee du feneen kon dawal woote ci numéro bi ma la jox def sa commande wala sax bu la nekkee nga commandé sa soxna. actu du jour lu ci gën a fës bokk na ci lu am tey ci mbas mi téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñaari yi aadama ñoo dooleeku ci lim gu ko fi jot a am juróom-ñaar ñeent fukk ak ñaar faj nañ leen tey ba ñu wër am na juróom yi nga xamante ne nii ñàkkaat nañu ci seen a bakkan njiitu réew mi Macky Sall daal dinay euh, xamle ni defaat na di couvre feu waaye bile yoon couvre feu partiel ci diggante ñaari région waaye itam daal dinay euh, xamle ni moom moomee ordonné na euh, ngir ñu proposé ko dans les meilleurs délais ab stratégie nationale de vaccination danañ leen gën a yaatalal yi les xibaar danañu wax tamit ci biir yaatal yi si lu ñeel financement bu parti politique yi ak li nga xamante ne moom la si Ousmane Sonko xamle woon ci ab vidéo benn religieuse bu nekk ca euh, Touba euh, ñu naan ko Safinatul Amaan moo damm ci pooj gannaaw euh, ba mu doon dakkee benn xale bu jigéen bi nga xamante ne ni solin wa dañoo ne rek dëppoowul ak yoon wa ilaa sax rafetul ci gisina mbirum professeur Samba Diol mu ñu fekkoon mu ñàkk bakkanam guddi talaata ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru novembre ca këram nekk ca Ouest Foire daal dinay amal xibaar bu bees gannaaw ba brigade gendarmerie bu Foire jotee teg loxo kenn ka nga xamante ne nii jógula ci euh, mbirum euh, professeur Samba Diol Momi danañu jël roppalaan dugg ca réewum États-Unis addu si mbirum sénégalais boobee di Ousmane Sarr moom moomee juróom fukki atub réclusion criminelle la ñu teg si ndoddam ngir sàccu boto li ni mel nag tax na ba doomu Sénégal ya nekk foofuyee ca réewum États-Unis daal di si yëkkati ay kaddu li ni dañoo gis ne rek lu Ousmane Sarr nekk der bu ñuul moo waral ñu doxalee noonee danañu wax tamit si sëyu ba Omaro kii di Ayo Balde di ab Gambien bu nekk Suède seen sëy nag ñoom ñaar bettoon na ñu bëri rek ci li nga xamante ne nii moo di atmosphère pipol bi ñoom ñaar ñoo ñee nag nga xamante ne ba ñu sëyee yàggul Omaro mayoon ko lu duun lool ngir rek dab bànneexam waaye yàggul lool sëy wa yëngu gannaaw ba ko Ayo Balde fësalee ci ay publication ya nga xamante ne nii rek daal koy def actrice bii di jéewoo la ñu li ni mel nag ñoom si seen bopp ñoo ko Euh, moom jéewo ak doomam bu jigéen gannaaw ba ñu defee benn vidéo euh, bu ndaw rekk di indi ay leeral si li ni mel ngir rek askan wi gën ko bàyyee xel loole yëpp bu yembee daañu si toftal tàggat yaram wax si làmb laata ñu koy tëjee ak football li moo ci gën a fës nees gannaaw bàkk bi ñu daal yaata mu nga ko nuyu nañ leen di leen dalal jàmm ci xibaar yi comme ni ñu ko tàmm di defee mbas mi la ñu koy dooree si suñu réew mi di Sénégal bu ñu sukkandikoo ci ministère bu gàlloo wàllu mbir gu yaram ak action sociale tey junne ak juróomi téeméer ñeent fukki doomi àddama la ñu di testé si ñoom ñu téeméer ak juróom ñeent fukk ak ñaar ñoo ca amee lii di coronavirus bi ñeent fukk ak juróom-ñaar ya la ñu wàll benn ba jógee biti réew dugg si si réew mi lu tolloo ko téeméer ak ñeent fukk ak ñeent yi di ay cas communautaire doomi àddama ak ñaar faj nañ leen tey ba ñu wër ñaar fukk ak ba ñu nga sauvetage am na juróom ña nga xamante ne nii ñàkkaat nañu bakkan ci mbas mile nga xamante ne ba mu ñu ganese ba jamono ji may waxee ak yéen lu tollook ñaar fukki junney doomi àddama ak téeméer ak juróom fukk ak juróom benn ñoo ko fi jot fii si Sénégal si ñoom ñoo ñee fukki junne fukk ak ñaar jot nañ leen see faj ba ñu wër ñeenti téeméer ak fanweer ak ñett ñàkk nañu si seen bakkan a mu ne ni junney doomi aadama ak juróom-ñeenti téeméer rek ñeent fukk ñoo tëdd ci bërëbu fajukaay yi yore bi le feebar di coronavirus bi ñu leen si traité. mbas maa ngi gën di law si suñu réew mi di Sénégal bés bu yàlla sàkk kaa yeeg dese yi di gën di yokk li mel tax na ba njiiti réew mi Macky Sall amal ab réunion de crise ni ki démb si talaata ci ca palais si noonu nag la décidé amalat couvre-feu waaye bile yoon couvre-feu partiel Euh, ci diggante 21h euh, jàpp 6h du matin euh, couvre-feu bi nag niki tey ci àllarba gi lañ koy door ba tey rek ci jiitu réew mi Macky Sall ak discours bu mu def démb si talaata ji si ngoon ca RTS 1 moom nag daal dinay souligner tamit solo ba veiller si renforcement wu contrôle sanitaire yi ci li di frontières yi laata muy fàttali effort ya ñu def ci force Covid 19 bi ngir renforcer infrastructure yeeg équipement sanitaire yi ak service bu beesu maladie infectieuse bu hôpital Fann différents programmes d'investissement yu ñu réalisé ci 2020 bi fonctionnalité centre de traitement épidémie yi service d'urgence yi ak accueil ak li nga xamante ni moo di réanimation ba loolu weesoo Macky Sall daal dinay xamle ni sax moom moomee daal dinay ordonné ngir ñu proposer ko dans les meilleurs délais stratégie nationale de vaccination ngir jël en charge ak en priorité vaccination personnel médical bi ak groupe cible yu yittewoo attention bu gën a mag laata may leeral ni Sénégal mi ngi wëyandi collaboration wam ci cadre initiative bi di COVAX. ba tey ci boobu boobule xibaar waaye bi la yoon ak Thierno Bocoum di leaderu mouvement Agir moom nag daal dinay réagir ci li ni mel la mu bëgg mooy njiitu réew mi door campagne vaccination Covid 19 bi ci boppam moom Macky Sall gannaaw ba mu xam leen ni dañoo war a gouverner par l'exemple ba tax na campagne de vaccination bu mu xam a ci boppam ak ñi nga xamante ne ni ñoo di ñu bokk ci gouvernement wam ministre de l'intérieur Antoine Félix Diome daal dinay addu ci mesures sanitaire yi ak sécuritaires yu njiitu réew mi Macky Sall jël ngir limiter la wuuba coronavirus bi si suñu réew mi la di Sénégal jëwriñ bi nag nee na état d'urgence bu bees bi euh, mu bokk si couvre dina ñu ko matérialisé ak présence su takk der yu si wàcc ci terrain bi ngir veiller si jëfee ba yilee mesure euh, ba lu weesu Antoine Félix Diome ni loi wu 1969 moo moo état d'urgence bi laata muy naan durée bi ñu ngi ko àpp ci fukki fan ak ñaar waaye mën nañu ko yokkaat ndax lépp mi ngi wéeru si nu situation bi di tëddee jëwriñ bi daal di ne dankaf tamit képp ku jalgati yi les mesures ndax nee na rek su boobaa daañu la teg ay daan Antoine Félix Diome dañoo war a tekki ndombal tànkam ci poste ministre bi laata muy def lu ëpp su dee nekkul ci mission bu ñu ko sant ngir image suñu démocratie du samay kàddu nag coordonnateur des cadres de PASTEF Bassirou Diomaye Faye moo ko xamle bu ñu sukkandikoo sax ci moom Antoine Félix Diome mënula diriger ministère de l'intérieur et de la sécurité publique. ma àddu ci financement wu parti politique yi ak lu ci Ousmane Sonko xamle woon ci ab vidéo bu ñu fësalaat moom nag daa waxoon ni ñun ñëpp xam nañu ne benn différence moo mën am ci diggante yenn parti yi te loolee du lenn lu noonee mu ne amuñu discours amuñu it li nga xamante ne ni moo di programme ba tey Ousmane Sonko daal di fay xamle sax ne dinañu gis fii ak juróomi weer élection législative yi xaalis bu takk lool buy circuler bu ñu mësul a gis si réew mi si noonee mu ne fan la xaalis boobee sax di jógee ba loolu weesoo Sonko ne bu ñu gisee ministre de l'intérieur nañu ko laaj ndax APR déposé na rapport financier wam ngir wax fu ñu jëlee centaine de millions ya nga xamante fan la financement yi eh, di jógee ko te yoon daa wax si nii li ni mel cause de dissolution la waaye eh, kenn defu ko ba tey rek ngeen di teewlu xibaar yi ci Dakar Buzz benn membre police religieuse bu nekk ca Touba ñu naan ko Safinatul Aman la po jam damm waa ji nag métit bu tar la doon yëkk gannaaw ab incident ca ancienne gare routière ba laata ñu koy évacuer agence Safinatul Aman boobee eh, ndaa bëggoon a benn xale bu jigéen bu soloon benn jupe bu Euh, muurul ay cëram wa ilaa sax euh, rafetul ci gisina waaye nag xale bu jigéen bi daal dinay mujjee sauvé gannaaw ba agent ba daanoo mënatul a jóg ndax da see jëlee poj wu damm euh, ci fàttali Safinatul Aman police privée buy veiller ci respect des bonnes mœurs la ci capitalu mouridisme bi ngir teg ay daan képp ku fa jëfee la nga xamante ne ni dëppawul ak seen doxalin foofee ca dëkk bu sell ba ñuy wax Touba structure boobee nag Serigne Modou nga bu moo ko dirigé gannaaw ko créé ci atub 1997 ci accord cinquième xalife général des Mourides di Serigne Saliou Mbacké ana ñu bëgg voiture maanaam oto yaakaar naa kenn bañu ko ak Amadou Camara ca Canada oto wala marque oto bi ma bëgg gisuma ko daal na fiy jeex a marque bu dul marque jinne boo demee fekk ko fa moo xam nga bëgg Ford Range Rover Toyota RAV4 Chevrolet ak ki yeneen ak yeneen oto yu taaru lool te mucc ayib rax si dolli nag si njëg bu xéewalee ba jaaxal ma waaw waaw yow mi ci bëgg da woo Amadou Camara si numéro boobu ngay gis ci bar bi di plus 1 514 464 525 3 bu la neexee sax woo ko ci WhatsApp commandé oto boo mën mënti bëgg si njëg bu xéewalee loola Amadou Camara am na ndawam fii si Sénégal yow daal woo ko rek rek wax ko oto ba nga bëgg lépp lu siy leeral dina la ko si wax yii njëg daal ma gis ci Amadou Camara ca Canada ku amul oto bu taaru lool yow la neex te nag foo gaare ñu xoolaat sa oto daal di lay naw yi la oto yu taaru daal fii rek nga ko mën a amee du feneen kon dawal woote si numéro bi ma la jox def sa commande wala sax bu la neexee nga commandé sa soxna. leneen mbirum professeur Samba Diol mu ñu fekkoon mu ñàkk bakkanam guddi ba talaata ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru novembre atub 2020 ci këram bu nekk Ouest Foire daa dinay am xibaar bu bees brigade gendarmerie bu Foire daa dinay teg loxo kenn ku participer ci boobule attaque mortelle kookee nag du kenn ku dul benn xale bu góor bu ñuy wax AC ay atam toll ci ñaar fukk ak ñeent moom nag ñu ngi ko teg loxo gannaaw seytu yu ñu def ci boobule mbir gendarme enquêteurs yi nag ko teg loxo ci ndimbalu Sonatel bu localiser téléphone victime bi ba ñu yëggee cambriolage bi ak meurtre Samba Diol bu ci toppandi élément ya nga xamante ne ni ñoo yor enquête bi dañoo nemmeeku woon ni defkatu ñaawteef yooyee dañoo sàcc téléphone bi ci noonu la ñu gisee que waa Sonatel ba ñuy amal seeni ay investigation téléphone bi nag fay na lu yàgg lool laata muy mujjee joxe benn signal di lu yombalal arrestation xale bu góor boobee di AC moom nag nanguwul sax la ñu koy tuumal ndax nee na nekkul woon kër kii di Samba Diol laata muy naan téléphone bi Colobane la ko jëndee si ku ñuy wax ML moom sax nee na footballeur la nekk biti déew laata muy naan lu compétition sportive yi arrêté ndax mbas mi moo tax mu ñëw fii si Sénégal li ni mel nag doonul la nga xamante ne nii convaincre na ñi nga ki nga xamante ne mooy commandant ak ay élément wam ak gannaaw ba ñu ko déféré parquet procureur de la République bu juge d'instruction di koy inculpé ba noppi placé ko sous mandat de dépôt ci waxtu ba ñuy ndi lii di enquête bi. litige foncier daa dinay jeex ca Tivaouane Peulh gannaaw ba PDG wu Sénico xam li ni mosula am intention métital doomu aadama li ni mel nag di coono bu jeex ca ñooy yeewoo ca cité Darou Salam 2 bu Tivaouane a ci benn rencontre privée le président directeur général bu Sénico Serigne Abdoulaye Dia xam leen ni jox na leen juróomi hectare ya doon indi nee na bëgg-bëggam bu ko gënoon a yitteel mooy am kër te tey yàlla may na ko ay cité si noonee mu ne bëggul a yàq benn kër rawatina sax benn birik ba tax mu ne lu ñu koy tuumaal mësula nekk intention am laata muy xamle ni jënd na ay terrain ya nga xamante ne ni président bi Abdoulaye Wade moo ko moomoon waaye benn partie bi objet d'un litige foncier la woon ba tax na mukk ci àdduna du am intention métital moroomu doomu aadama dal di koy waat tey rëccu lu nit ku riche la euh, bëgg a jëfandikoo dooleem si ña nga xamante ne ni seen loxo jotul seen digg gannaaw di lu ko métti lool euh, si muy xamal kilifa bu Y'en a marre ak euh, Guy Marius Sagna ak seeni ay ñoñ ñi daa bëgg rek ñu teggi yooyu lee tuuma ñuy teg ci ndoddam ma junj leen ko ci bopp xibaar yi ñu tegg ci ndoddam juróomi fukki atu ba réclusion criminelle ca États-Unis depuis atub 2003 ngir vol aggravé Ousmane Sarr mi ngi souffrir ca cellulam ab soxna suñuy wax Patsy doon sàcc oto marque Toyota euh, ba mu defee nag ay weer précisément ca weeru août euh, borom këru ndaw si dal di gis oto bi euh, tax rek mu xaar ba ku koy dawal gaare mu woo police ba policier yi ñëwee la ñu dal di teg loxo sénégalais ba ko doon dawal ba ñu fuwee sax ca biir oto ba daal nañu fay fekk lu agresseur ba soloon bés boobee ak paaka ba ñu jëfandikoo woon ndaw si identifié na tamit sénégalais boobee di Ousmane Sarr ci photo suspect yu bëri ya ñu ko présenté ay doomu ñi nag dañoo ni eh, Ousmane Sarr dañu ko tëj ngir lu mu nekk nit ku ñuul ndax police eh, wan na soxna si juróom-benn photo ya nga xamante ne nii eh, Sarr kese moo si nit ku ñuul mu daal di ko si tànn donte waxoon na policier yi ne sàcc ba dafa masqué woon xar kanamam bu ñu sukkandikoo ba tey si compatriote yooyee initié pétition ngir ñu wàññi peine bi avocat ba ñu jël foofee sax ca réewum États-Unis défendre la kii di Sarr ci anam bi mu waree damay jubali ca élèves moo fa taal benn classe c ba mu lakk ba jeex tàkk euh, li ni mel mu nga xewee ca école élémentaire Saré Guilel 2 euh, li ni mel nag nit ki altine ñeenti fan ci weeru janvier atum 2021 bi ñu nekk si ay booru ñaari waxtu si bëccëg fekk ñëpp ñibbi la daal di xew ci noonu table banc ya kaja ya livre ya ba ci tableau ba lépp làkk ba jeex tàkk bu ñu sukkandikoo ci monsieur Diagne ab élève C2 buy euh, jàngee ca école ba yoroon allumette moo def li waaye moom moomee weddi di koy jiiñ benn frère buy def CP yàqu-yàqu yi nag bëri nañu lool gannaaw ba ñaar fukk ak juróom-benni table banc lakkee ba jeex tàkk lu tollook ñaar téeméeri kaye ak juróom fukk ak ñeenti livre lépp dafa lakk ba def dóoma benn élève bu ñuy wax FBA di mineur moo yóbbu ci yoon xaritam bii di Mohamed Diop mu mu ne moo sàcc téléphone am marque iPhone XS buy jar 845 000 francs CFA bu ñu sukkandikoo ci xale bu jigéen bi bés boobee copain ñawam bi daf ko seet si di koy ab téléphone ngir photo wu fekk muy waaj a jëndi la mu lekk euh, fukki simili ci gannaaw loolee rek euh, Mohamed daal di dem yoonam euh, ci noonee la xale bu jigéen bi demee ca yaayu Mohamed ngir laaj téléphone am waaye ak mbettal dëgg la ko Mohamed waxee ni delloo na ko téléphone am boobee ñu koy toppee nag abus de confiance Mohamed Diop weddi na mbir yi si waxtu bu tàntaay xale bu jigéen bi di réclamer 845 000 ay atam toll si fukk kaso avec euh, sursis la ñu teg ci ndoddam moom Mohamed Diop euh, ak 845 000 yu mu war a fay taskatu xabaar bi di Ndeye Fatou njaay mu jógee ko Walf ri bu yàggul dara gannaaw ba mu fa defee fukki at ak ñaar daal dinay tàmbalee liggéeyal kii di Kumba Gawlo Seck euh, moom moomee mu nga rek ca rajo Kumba Gawlo ba mu tàmbalee émission li mel nag ñu ngi ko fësal ci vidéo émission ba mu fa njëkk a def nga xamante ne nii daal nañu koy fësal ci lii di réseaux sociaux yi leneen mu bëri ci atmosphère people bi ñoom Omaro Gueye ak euh, Gambien bi nekk ca Suède di Ayo Baldé Omaro nag mayoon na ko pariru or ñetti million ci suñuy koppar ak benn dot bu mu defoon turam ngir combler ko ñenn ñi sax ñoo ngi doon naan Omaro ak Ayo du duñu yàgg benn weex nag la war a yemool ba ñu sëyeeg léegi coow newati comboy ci seen diggante ñoom ñaar ñooñee ba tàggoo di si xeeñ Ayo ci boppam moo ko fësal ak ay publication yu muy def ci ay comptam annoncé euh, tàggoowam ak kii di Omaro Gueye mu mu ne rek euh, amul la ko neex ca sëy wa laata muy dindi sant Omaro ba mu ajouté woon juste ba ñu marié ñoom nag seen lune de miel bi daal dinay mujjee rek doon lune de fiel comme nu mu ko xamlee ci poste ya mu def Omaro nag da doon jéema a lëre dal di fësal capture d'écran ba nga xamante ne ni appel bu mu sekkoon nag kii di Ayo Balde la mi nga xamante ne ni mi ngi bind si contact am soxna si di appel ba nga xamante fukkeeli ak juróom la durée ngir weddi rumeur bi ci seen divorce bi waaye ayo moom nee na rek taskatu xabaar yi nañu ko bu ñu bëggee xam problème ak kii di Omaro Gueye actrice bi di jéewoo la ñu escroqué ci benn vidéo bu ñu def nag doomam bu jigéen bi daa dina ci indi ay leeral di xam le ni dafa am ñuy def usurpation d'identité maanaam di jël compte Instagram wala Facebook di koy utiliser ci turu ba waajuram bu jigéen boobee di jéewoo te nekkul moom benn yoon ndax nee na sax waajuram benn réseau sociale ndax nit ku effacé la ba tax rek mu jéewa tamit di dëggal kàddu doomam ju jigéen joojee te ñuy naan rek képp ko gis yooyu les compte na ko signalé Euh, basketteuse bi di Astou Ndour euh, moom moomee daal dina ñuy fësal image yu mariage am yi gannaaw ba mu marié bu yàggul dara image yooyee nag ci réseaux sociaux yi la ñu ko biral bokk si yooyee ngeen di gis si écran bi équipe Dakar Buzz yëpp dell di koy souhaiter heureux ménage moom ak borom ma gannaaw ba ñuy yeewoo ca Pikine yu ko ndimbal ngir kii di Djiby Ama mu feebar tëral bu yàggu dal di na ñuy dajale lu toll ko juróom-ñaari millions si suñuy koppar ngir kii di Djiby ci presse di koy rafetlu gannaaw ba ñu si béggee lool ndax ñoom ñoo ñee ñoo ko fësal tey ba ñëpp jot ca noonu laay xuusee ci tàggat yaram mbër mi di Papa Boy Djiné di borom këru Ndeye Gueye daal dinay xamle lu doy waar moom nag nee na dañu ko tëjoon kaso waaye nekkul bon moo leen fa yóbbu ndaxte rek dañu fa dem ngir yàlla dimbale leen ba ñu dellu siwaat ci jeunesse bi mën a xam yoon bi ñu war a tegee seen tànk ba loolu weesoo Papa Boy Djiné ne ba muy joué mbappat tax mu bàyyi mbappat depuis ba mu génnee kaso nee na nag li ni mel ca atub 2011 la woon waaye bés bu yàlla sàkk day gën a bees si moom si euh, noonee euh, Papa Boy Djiné euh, ne rek dafa amoon ku ñàkkoon bakkanam ci coow lu amoon ci mbappat boobee ñu jiiñ ko ko te ba problème bay am sax nee na moom daa feebaroon ba bëriwul woon ci boobule làmb ba tax na daal nee foofee la jaar bàyyi lii di mbappat football laa koy tëjee tëngeeta football daa dinay éliminer Raja à Casablanca ca deuxième tour préliminaire Ligue africaine des champions ci noonee Teungueth FC dal di qualifié ci phase Ligue des champions Teungueth nag dana ci duufal gafakam ci li gannaaw équipe rufisquoise bi danañu laal rek euh, lu nga xamante ne ni dina tolloog 293 millions 975 mille si suñuy koppar ci fàttali ca weeru mai bi ñu génn CAF annoncé na yokkute ba prime yi ngir club yuy gagné Ligue des champions waaye itam ñuy participer ci boobule compétition ndax euh, mbas mi. bëgg voiture maanaam auto yaakaar naa kenn bañu ko ak Amadou Camara ca Canada auto wala marque auto bi ma bëgg gisuma ko daal dina fiy jeex marque bu dul marque jinne boo demee fekk ko fa moo xam nga bëgg Ford Range Rover Toyota RAV4 Chevrolet ak yeneen ak yeneen oto yu taaru lool te mucc ayib rax si dolli nag si njëg bu xéewalee ba jaaxal ma waaw yow mi ci bëgg da woo Amadou Camara si numéro boobu ngay gis ci bar bi di plus 1 514 464 525 3 bu la neexee sax woo ko ci WhatsApp commandé oto boo mën mënti bëgg si njëg bu xéewalee loola Amadou Camara am na ndawam fii si Sénégal yow daal woo ko rek wax ko oto ba nga bëgg lépp lu leeral dina la ko si wax yii njëg daal ma gis ci Amadou Camara ca Canada ku amul oto bu taaru lool yow la neex te nag foo gaare ñu xoolaat sa oto daal di lay naw yile oto yu taaru daal fii rek nga ko mën a amee du feneen kon dawal woote ci numéro bi ma la jox def sa commande wala sax bu la nekkee